bisimilah barke borom Touba bisimilah barke borom Touba bisimilah barke borom Touba inna lillah wa inna ilayhi rajiun kon ñu ngi yëgal mboolem daara yi mboolem jëwriñ yi dina xamal ne yàlla suñu borom li nga xamante ne mooy liggéeyloo ñu baax ñi ci siraatul mustaqim di tàmbalee suñu maam Adama bisub tey nga xamante ne tey jii suñu sëriñ bu tedd bi. moo ko lii liggéeyloo liggéeyam bu màgg bi mu liggéey ko ba liggéey bi àgg yàlla suñu borom gërëm ko jund layel xaalibuuna gunge ko mu dem ci suñu borom dogal boobu agsi na ci ñun tey waa waaye na ñépp xam ne ginnaaw wóor nañu ne rasulullah sallallahu alayhi moo wane yoon wi def ko ci jëmmi boppam agsi suñu sëriñ bu tedd bi kon tamit bu agsee ci suñu kaw dañ ko war a nangu te it doxal ci gëm yàlla doxal ci wéetal yàlla doxal ci nangul yàlla suñu borom kon lii moom mooy li nga xam ne moom laay ubbee samay kàddu wax ak euh, membre isbu talxee jafe na ma lool waaye dinañ xamal ne kon dogal bi agsi na sunu kilifa di Serigne Atou Diagne di responsable moral isbu talxee yàlla suñu borom dogal na mu génn àdduna noppalu na bi ci fajar gi guddi ajuma bi ci fajar gi ñu ngi koy indi nag Touba waaye dina xamal ne Cheikh Mouhamadou Mountakha du lu mu bàyyee kenn du lu mu séq ak kenn moo koy taxawal boppam yéen nag dangeen di ay jëwriñ te xëñ na am na ñoo xamante ne mën nañoo doon doomi kilifa wala ñu jege daal di koy siiwal ngeen déggee ko feneen loolu du caaginu dañu la joxul seen cër dafa di lu def faw ñu def ko ci ndigal loolu rek moom mu moo ñu dab nit ñi mëna ñoo foré fu né waye yeen ñu ngi leen di xamal ne leen dogal bobu aksi na ñu leen di ñaan ngeen dëgër te gëna ñu ñu waat suñu jaayante suñu digënté ak sëñ Tuubaa xam ne sëñ Aatu wan nañu aw yoon wo xamantene yamul ci wan ñuko won wan nañu ko waye gunge nañu ci and na ci ñun ba toqi ñu ci kon dara dess ci luddul ñun ñu wané ne liñ jangal liñ doon jang mokk la loolu fofu lañ toll kon kon tollu nañ ci war ko taxaw euh, di xaar sëriñ bi incha allah waaye ñu bëgg kenn ku ci ne fañ la taxawloo nga taxaw fa fañ la toogloo nga toog fa ñu taxaw ko ndax suñ ko suñ ko lijjantewul ci ci ci teg ko ci yoon kenn du ko àttan ndax waxuma la yoonu murit yëpp waxuma la lislaam yëpp waaye Sénégal kon ñëpp buur ñëw fi te jamono jii ñu ne mu jamono boo xam ne jamonoy mbas la mbooloo mu dajaloo li mu mën a jur ci yàq dafa bari kon nañu roy sëriñ bi ci ni muy doxe mooy kenn ku ne yam fañ la loo kenn ku ne xam li nga war a taxawee loolu suñ ko defee dinañ taxawul sëñ bi dinañ jàppale sëñ bi loolu daal moom lañ leen bëgg a wax sëriñ bi mi ngi ñëw waaye moom na leen wóor ne fu muy ñëw jël nañ dispositif boo xam ne jox ko loxo képp mayuñu ko kenn mu def ndax la la la la ko jëmmi sëñ aatu jaral ba tax dégluwul kenn mu ne mooy ñëw boppam moo koy taxawul boppam kon loolu ñun suñu teggin na matale ba ñu xam ne kon kenn du ko nuyu kenn du wax ak wax moom len lu dul moom mooy joxe ndigal ñu di ko def jërë ngeen jëf na daal مجدد مجدد